liggéey nag mbokk yi bu ñu la ko defee bokk na ci yi nga xam ni moom ngay xam ne dañ lay liggéey mooy sa fit day tëf tëfi ngay toog di gis sa fit di def tëf tëf tëf joo du dakk bu ko defee rek ba mu yàgg mu bàyyi ba mu yàgg mu defaat ko loolu boo ko gisee ci sa bopp rek booy woo nga jóg ci sa bopp sa xam ni ñu ngi lay fexeel ndax doomu aadama yàlla ko bind noo xam ne lépp luy ñëw ci moom rek dina ko yëg dina am signe bu koy wan ñenn ñi seen bët day raf hmm, ñenn ñi seen fit day tëf tëfi am ñoo xam dañuy gént dañuy am gént nga xam ni message bi dina ñëw ñuy gént di tiit wala gént ñu di leen ba max ci ay kàmb wala gént ñu di ay agresseur kar leen jàpp leen wala gént ñu di leen dàq xeeti gént yu bisaar yooyu wala gént ñu jàpp la police yooyu boo ko géntee rek mën nga bàyyi xel ni ah am na lu xew parce que comme daawoo ko gént dañ koy gént bariwut nga jékki-jékki gént lu mel noonu nga xam ne am na lu xew hmm, loolu nag moo tax nit ki di war a wut kaaraange nit ki boo amee ngi dëgg maanaam dina koy xam ne ni du tiit du ragal bari na sax lu ñuy ragal ko ragal fu ñuy ragal a jaar mën na faa jaar lu ñuy ragal def mën na koo def du ci bàyyi xel sax mën na koo def ba noppi doo ko gis ni man kat li ma doon def ndaxte wóorut waaye kóolute gi muy àndal ak sécurité bi loolu mooy tax a du tiit day ñëwe mais mbooloo lu mu bari bari bu duggee seen biir du raf du yëg ni ay nit a ngi fi wala am nañu ko xool moom day jàpp ne rek moom kese moo fi ne loolu mooy kaaraange dëgg waaye boo manqué kaaraange da ngay patiner da gis ni boo duggee ci mbooloo da ngay tiit wala bu ñu xoolee sax nga ragal bu ñu waxee yow nga jàpp ni tey nga dee yooyu yëpp manqué kaaraange moo koy def. xam nga nag nit ki ni mu toll rek noonu la kaaraangeem war a toll booy ci turam wala alalam wala ay am amam wala ay atam yooyu yëpp karange gi dafa war a yokk loolu nag mooy tax ñu wax ni karange day tëjee wala yenn karange yi sax ñu wax ni ko amul ñeen fukkat war koo jëfandikoo xëy na loolu jamono taxoon rek waaye léegi moom <laughs> ñëpp ay responsable lañ am na ñoo xam ne amuñ ñeent te yor nañu responsabilité yoo xam ne borom ñeen fukkat bu njëkk daaw ko yor kon loolu rek mooy déggin bi mooy nit ki bu fekkee ni moom day xëy di toog këram demut fenn demut ci benn ndaje jax sowut ak kenn ba bëgg jël kaaraange goo xam ni ab président ko war a jëfandikoo wala ministre wala ku siiw goo xam ne sax ñu tudd ko loolu tam du baax ci moom mel ne ki xëyoon rek jël ay gendarme yu bari teg ko buntu këram te moom du ministre du kuy may xaalis du ku kenn xam xam nga kooku kon lu war a ñëw ci moom du ñëw waaye ki nga xam ne nag dafa doon ministre wala mu doon député wala mu doon ku ñuy yaakaar di ñëw ci moom kooku bu tegee ay sànnama buntu kër bi dañu xam ne c'est normal parce que li muy nekk moo ko laaj